ayca mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz euh, comme niñ leen ko waxee gis ngeen ko sànq ba tey ñu ngi ci xew bi macha allah euh, ñu xit nag nee naa leen ni mu toll rek la bësam toll tabarkàlla nit ñu wuyu si nañu ko euh, vraiment ambiance bi neex na waaye nag ñu toog ak ki nga xamante ni moo di soxnaam soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Fatsila madame Thiam. eh yow da ngaa jege de. ayca <laughs> ban yëg-yëg nga am tey ci bés bi. vraiment kontaan naa torop bis bi moom macha allah di sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp kontaan naa trop. sa sedd na. sama xol sedd na trop. dund nga ko daal ak sa mbokk. waaw. ñëpp ñëw nañ jàpp si bés waaw am mbégte. di sant nag Moustapha Thiam borom xol borom xolu jamaa bi. macha allah laf cat yàlla jubóole ñu amiin. Euh, ban nga am tey bi nga ñëwee gis artistes yi macha allah théâtre kat yeeg waykat yi ñëpp ñëw nañu wuy si sa jëkkër. kontaan kontaan naa torop loolu moom mënu ma wax ne damaa kontaan dëgg neex yàlla kontaan naa si ñoom torop bég naa. ñu ngi lay jaajëfal. ndax da ngaa <laughs> <laughs> ca mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz comme niñ leen ko waxee rek ba tey euh, ki ñu toogal nag mooy suñu yaay ah lu jik njaag moom mooy njaag njaag a ngi nii ba mu toogee ba tey jógul kii mooy yaay ñu kii mooy yaay Tafa Thiam mi nga xamante ni euh, doomu Sénégal la kii moo waral bés bi tey yaay booy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di kontaan ci sa teewaay trop nag maa ngi lay fay di kontaan sa teewaay. tur bi naka la. ma soxna Mané Thiam. soxna Maguette. soxna Mané Thiam. Mané Thiam. waaw. yaa yaay ñu yaa ko jur. maa yaay ñu maa ko jur. maa yaayam. mu doom ju baax nag. ju bëgg yaayam. ju yërëm yaayam. ma yërëm ku ma bëgg. ku ma jege. ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér. moom laa koy ñaanal. waaw yan seede nga ñu mën a defal ci sa doom. xanaa nag am yar am teggin am lislaam dafa caam nu mu caataat yar alu mbooloo bari bari. waxtu julli jotee mu bàyyam def mu julli loolu laa xam ci moom loolu boobu moom seetaan a ko ci moom bëgg a bëgg ay rakam bëgg ay magam bëgg ay nijaay bëgg ay papaam bëgg ñëpp rek loolu ma seetlu si moom di nit ku baax nag ku obeer nag ku bëgg ñëpp ah, bi muy bi muy liggéey bi mu koy indi. waaw lu am da koy bokk ak am da koy bokk ak ñun man bokk samay jabari càmmiñ bokk ak suñu waa kër lu mu loolu lay def bu denc dara mu am rek ñoo ah, dafa yeb boppam yeb yaramam léeg mu sol ay solinam def ay yëfam boo toogee di ko seetaan ban yëg-yëg nga. saa mu ñëw rek ma mer nag ba damaa war a woon def loolu <laughs> yow ab nga sëñ Moussa la koo def mu yaay ree li rek la. <laughs> daal nga xool ko sa xol tooy. waaw yenn saa xol tooy moom. waaw yenn saa ma xool ko moom moom sama xol tooy moom waaw. am ñeewantal ci moom ma am ñeewantal ci moom daf maa jege daf maa jege am may mag am may rek waaye ma jege la xarit la daal ma xarit la waaw sama xarit la moom ma xarit la. boo toppandoo nit ñi ah. waaye moom bàyyiwul kenn ku surtout surtout muy toppandoo El Hadj Mansour Mbaye am jooju ama ala Mansour maa am moom te xam naa ma koy tooñ dañuy kontaan ñëpp ci kontaan wax dëgg yàlla. dañuy ree ba sonn rek. bi muy dugg ci théâtre bi commencement bi euh, ban yëg-yëg nga ci amoon. ba luy commencement wax dëgg yàlla moom xawoon naa riis man lool dugg ci théâtre bi usoon na ci man lool ndax papaam sax commencement bi ànd ci woon suñu mbokk yëpp wax dëgg yàlla bu see télé bi xale yi mere naa yaa ko bàyyi mu dem mu daw jàngal mu def nangam wax dëgg yàlla usoon na ci man lool waaye nit bu toogee ba xam nag li mooy bëgg-bëggam dañ ciy ànd ak moom waaye commencement bi di sonn na ci man. waaw. bi mu gënee nekk xale léeg-léeg mu joué surtout bu ànd ak jaal Diall nga xam ne yaayam la mais daf koy yab boo génnee sa mbokk ñu naan yaay ñu xita ñu nii. yaay fu ma dama dugg si sax di toog di débat ma Diall ko jur ci dugg du ma toog dama naan teel rek ndax mère dañoo yàgg ndax mère ñoo bokk benn koñ sa ami collègue moom mu nga xam ne moom la ta ñoo may maa togg ngénteem maa yaayam ñuy ànd dañuy ay xale. ba mu nekk mag moo tax keroog bi ma nee Ami Collé ma laay may njëkkee rek dama cee kontaan waaw. mais jaax na nekk yaayam nekk léppam ndax mais jaax ñu doon ànd maay magam magam laa ñoo bokk benn koñ ma Sini moom maa toog ngénteem Sini mi toog fii léegi maa toog ngénteem ñoom seen kër ak suñu kër benn la woon ñu nekk ay ñeeñu nekk ay géer waaw dem nañ ba nekk nekkatuñu géer ak ñeeñu loolu la yàlla def. léegi laa ko wax fi rek nday yaayu yaayum Ami Collé bi mu ñëwee nday seen yónnee xaas su bari léegi laa wax ma ko ñu nekkatuñu géer ak ñeeñu bokk nday ñoo bokk baay waaw ma yàgg ak ñoom ndax bu ñu am ba ma ànd ak ñoom ëpp na juróom fukki kon yàgg na ma ak ñoom. kon daal àndam ak mère Diall da nga ciy kon da nga ciy kontaan. naa ci ndax yaayam la seeni mi saa yu tafa càmm loolu bu doon waxaat dara sax dama wax demal ci seeni sama yoon nekku ci seeni bëgg tafa càmm loolu nag. xuloo yaayam sax seen bu day day jaay xuloo ak mère jaay xuloo tafaa sax tafaa lay faral seeni tafaa lay faral bëgg seen bëgg tafaa nag def ko rakkam wax loolu nag wax dëgg yàlla te si nag moom mook soppi daal mënu ma leen a fay dama leen a yàlla rek waaw. dégg naa bi mu nekk xale ku soboon la woon te a yàq. <laughs> te mën a tooñ. dañ wulli ci mbedd <laughs> amul woon njëriñ. waaye daawul moom du xeex. dañ mel la mas a mel musu am problème musu ma ko àtte xeex ci mbedd barke sëñ Touba am problème ni mu mel noonu la mas a mel waaw. kër gi moom daan na yàq. naa loo teg mu daane ko. moom léejul moom. léejul wallaay amul benn problème. problème bariwul moom. ku nekk xam na ne waajur dafa jege doom rawatina nga gis sa doom bëgg dara papa ji papa yi parfois dañuy bañ mais yaay bu ñu gisee seen doom bëgg dara rek dañ ci daal di ànd ak moom papaam doon bañ nga nekk ci di naxante euh, keroog bu mu njëkkee am euh, euh, dara ñëw indil la ci théâtre bi ban yëg-yëg nga ci ak ñaata la la njëkk a indil. moom lu mas am rek bokk na kooku man lu mas am rek bokk na kooku man bokk ak papaam itam <coughs> papaam théâtre na ci am dara. papaam da ko woon tere ba yàgg ma dem màggal Touba papaam ne ma dafa li mu bëgg naa ma ci ànd ak moom na ko ci ñaanal ñun yëpp papaam ñaanal na ko ci rek am naa ci yaakaar ni lañ tekki papaam gaañu na waaye ñaanal na ko ci kon nag yaakaar naa dina tekki. la la ci mës a defal lu xam ne boo toogee gis ko rek sa xol day sedd. loolu la may defal lu ne lu ne dafa lu am bokk ak man loolu la may defal wóor na yàlla dama jëlee yére may sol di ma defal lu ne daal. mag moom boo ko dee jàppale Tapha Thiam bu wàccee sax bu amee bu amee juróomi dërëm sax na jaar dina ma ko furu indil ma ko ndax tefeel gu mu am ci man Tapha daal dama koy bàyyi yàlla rek rek laa koy bàyyeel ak yàlla. muy jël soxna tey euh, bi mu ñëwee ne la yaay dama bëgg a jël soxna ban yëg-yëg nga am. kontaan lool nag am ci fête lool sama xol sedd ci guy ma ñaan nag diggante ma sonoon si nga xam ne mbokkam la léppam la yal na leen yàlla yàggale ba am ci njabootu barke moom rek laa koy ñaanal. am maa ci feete lool am ci kontaante lool bi jaral ma lu ne nag bés bi tey lu ne la ma jaral kuy mbokk papaam ba teral naa ko tey ndax yëg-yëgu ma am ci tafaar damay la bëgguma dara tey sama bésu doom bi rek moom ma ñor kuy mbokkam rek tey mbaa nga bokk xeetu si papaam teral naa la tey ndax ndax kontaan ci moom kontaan ci bisu bisu ceetam bi sëy ak artiste yombul yan conseil ngay jox ki nga xamante ne mooy sa goro yan kàddu nga koy dénk xanaa te tollale di muñ te tollal rek xam ne dafa moom du nitu caaxaan ndax mosuma koo am gisuma ànd ak jigéen ñi kii su yaay sama gela barke Rasulaay mosul am dafa mosuma présenté gelam ma kii laay bëgg mosuma koo gis kon moom du nitu caaxaan jabaram dina xam naa dina mën a muñ lool ndaxte mu def luñ koy luñ koy xeebe daal du ko def waaw. Euh, ñu ngi lay euh, jaajëfal. de maa ngi lay delloo jaajëf. la wax na sañ sa nga ci bés bi tey cofoo bés bi de jëlal sañ sa bi yow maire bi nee na coful ko de. ko tibb ak doole. ko tibb doole. <laughs> maire bi nee na tey kuy mbokki damaa teral na la. waaw waaw waaw damaa kontaan ci bisam bi ndax de doom ju ma bëgg ju ma sagal moo tax kontaan naa ci lool ci bi. merci beaucoup yaay booy jërëjëf ñu ngi lay ñaanal yàlla na doom yi bari ba nga am ci turandoo yow it nga toog a toog ba sët yi di la maame ba sëtaat di ñëw ci barke Seydina Mohamed. yow tam yàlla na la fi yàlla bàyyi sa liggéey bi yàlla ci am ndam ban télé la nii. Dakar Buzz bëgg a yegg yàlla ngeen fa yegg ci barke Sëñ Fallou. waxal Dakar Buzz ma dégg yow maa meloon mère Binta Faye. Dakar Buzz. Ah,